te li ñuy wax rek àdduna moom ñaari mag ñoo ci am mag moo bëgg a mel ni moom ak mag moo bëggul mel ni moom te góor gi tey wolof yaay di wax suñ ne diw baax na ñu ne ndax ay mbokkam ñoo ko wax je pense que ne tey li fi nit ñi dégg unanimement dañuy ñaan yàlla suñ borom yaara bi cat bañ ko jiitu te yàlla xaaree ko àjjana yu gën a kawe parce que tey Sénégal comme li may wax rek ñun ñëpp ay sénégalais lañ ah waaw avant d'être luñ munti nekk kon tey lu rafet ak lu yiiw ak lu sell parce que comme li ñuy wax rek jaamu leen yàlla ba ngeen yaakaar ne liggéey leen ba ngeen yaakaar ne doo leen dee mais jaamu leen yàlla ba ngeen yaakaar ne suba ngeen fiy jóge kon tey moo waraloon suñ teewaay fii et ñu am kóllëre nag ak famille bi comme ni nga ko waxee alaaji aali ñun dañ ko fekk ci làmb et yàlla def ñu génération ak ay doomam e ku wax masata wax aale wax baay Eh, ñooñu tey làmb la kon tey dafay jaadu aussi eh, suñu amee seen bés bu mel nii ñu bàyyi suñu yite yëpp ñëw bokk kook ñoom di ñaan yàlla suñu borom mu xaaree ko àjjana waaw jërëjëf. waaw moom maanaam balaa ngay dem tamit dinañ la laaj. Mhm. lan moo tax fa bés yu mel nii saabu amee. Mhm. dañuy gis ne. Mhm. da ngay jëkkati sa tànk ñëw teew. mu mel ni tamit dafa mel ni même bëreetuloo nekkatoo ci làmb mais yaa ngi am ay relation yu rafet ak waa làmb ak famille sénégalaise bi yëpp. Ah, waaw xam nga man tuddeewuma sama bopp mbëru askan bi <laughs> waaw kon tey loolu rek dafay firndeel comportement au fait Boigny disait la paix c'est pas un mot mais c'est un comportement de tous les jours yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom lañ yaakaar nekk sama turandoor ne doo leen nekk jullit muk, tant que li nga yéene sa bopp yéene woo ko sa morom kon wax ji na ah wa <laughs> lool rek moy rafetal parce que aduna je pense que ne lepp ci netali lay bi su rek da fay rafet waaw motax aussi ñun mënuñu suñ Sénégal mhm. kon Sénégal encore une fois de plus mhm. Euh, tey Sénégal la nga wax nga wax Sénégal ku ne xam na ne. Mhm. moo maanaam jamono ji bi mooy dernière question bi de. bu yeboo nga préparé ko waaw <laughs> waaw. man maa leen bàyyi. waaw Basiru jamono ji nekk nii jamonoy politique la. waaw jamono ju yëngu la. Mhm. te itam man tey rek euh, say ay kaddu laa. dagg mhm. statico

xam nga écurie dafa am app mais philosophie c'est comme une pensée manam xalaat la kenn mënu ko téye ba ila yow mi diini parce que wax ji tay ma waxone 2011 la ko waxone tay mi ngi nek actualité kon tay limay wax rek euh, Sénégal ñun ñëpp ñoo ko il faut avoir un tout pour créer un monde sportif journaliste homme d'affaires

je ne suis plus lutteur en activité et je ne suis pas membre du CNG mais Il y a un héritage que nous ñun c'est à eux en fait de le gérer que nous gérions de manière positive ou négative nous la incombé mais li que wax ndonn nous lañ le bàyyil parce que tamit ah, nit da ngay def sa temps ba pare nga dem ñeneen ñëw def seen temps kon ndonu li nañ ko gérer parce que tey Ibou Sakho doon wax ne am dara te xamoo ko ñàkk ko te xam ko moo gën wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw ay ci mhm. ñu gisee mhm. la doomam la tey Mohamed mhm. ñu jàll la ko parce que sa wayjur la ñoom Aziz tamit yaakaar naa say frère lañu looy wax waa Sénégal Eh, alhamdulilah rabbi alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm suñu waajur ak suñu sëriñ Maolana Cheikh Ibrahima ah comme ni nga ko waxee rek Babacar defe naa ne lii tey dafay wanewaat xar kanamu Sénégal parce que en dehors de ndombol tànk yi en dehors de position sociale yi ñu ñëpp ay sénégalais lañ d'abord te li ñuy wax rek àdduna moom ñaari mag ñoo si am mag moo bëgg a mel ni moom. ak mak mo bëggul melni mom té goor gi tay wolof yaay di wax suñu né diw baax né ñu ne ndax ay mbokam ñoko wax je pense que né tay li fi nit ñi dégg unanimement dañuy ñaan yalla suñu borom yaara bi ciat bañ ko jiitu té yalla xaré ko aljana yu gëna a kawe parce que tay Sénégal comme li may wax rek ñun ñëpp ay sénégalais lañ waaw avant d'être luñ munti nek kon tay lu rafet ak lu yiiw ak lu sel parce que comme li ñuy wax rek jaamu leen yàlla ba ngeen yaakaar ne liggéey leen ba ngeen yaakaar ne doo leen dee mais jaamu leen yàlla ba ngeen yaakaar ne suba ngeen fi jóge kon tey mo waralon suñ téway fi et ñu am kóllëre nak ak famille bi comme niñ ko waxé alaaji aali ñun dañ ko fekk ci lamb et yalla def ñu génération ak ay doomam ku wax masata wax aale wax et ñoñu tey lamb la kon da fay jaadu aussi Eh, su ñu amee seen bës bu mel nii ñu bàyyi suñu yite yëpp ñëw bokk kook ñoom di ñaan yàlla suñ borom mu xaaree ko àjjana. waaw jërëjëf. waaw moom balaa ngay dem tamit dinañ la laaj. Mhm. lan moo tax fas bés yu mel nii saa bu amee. Mhm. dañuy gis ne. da ngay mhm. yëkkati sa tànk ñëw teew. mu mel ni tamit dafa mel ni même bëreetuloo nekkatoo ci làmb mais yaa ngi am ay relation yu rafet ak waa làmb ak famille sénégalaise bi yëpp. Ah, waaw xam nga man tuddeewuma sama bopp mbëru askan bi <laughs> waaw kon tey loolu rek dafay Firndel, comportement au fait Boigny disait la paix c'est pas un mot mais c'est un comportement de tous les jours yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom lañ yaakaar nekk sama turandoor ne doo leen nekk jullit mukk tant que li nga yéene sa bopp yéene woo ko sa morom kon wax ji faranku lay na ah <laughs> waaw loolu rek mooy rafetal parce que àdduna je pense que ne lépp ci nettali lay mujjee mujjee bi su rafetee rek lépp dafay rafet waaw moo tax aussi ñun mënuñ génn suñ bopp Sénégal mhm. kon tey lii Sénégal la encore une fois de plus mhm. waaw Euh, tey Sénégal la nga wax nga wax Sénégal ko ne xam na ne. maanaam jamono ji bii mooy dernière question bi de. bu yeboo nga préparé ko de waaw <laughs> waaw <laughs> <laughs> waaw jamono ji nekk nii jamonoy politique la. jamono ju yëngu la. Mhm. te itam man tey rek euh, say ay kàddu la dagg mhm. statico

xam nga écurie dafa am app mais philosophie c'est comme une pensée manam xalaat la ken mënu ko téye ba ila yow mi dini parce que wax ji tay ma waxone 2011 la ko waxone tay mi ngi nek actualité kon tay limay wax rek euh, Sénégal ñun ñëpp ñoo ko il faut avoir un tout pour créer un monde sportif yi journaliste

parce que je ne suis plus lutteur en activité et je ne suis pas membre du CNG mais Il y a un héritage pour nous, nous ñun dañ c'est à eux en fait de le gérer que nous gérons de manière positive ou négative nous le incombé mais ce li ma nous ndonn nous lañ le bail. parce que tamit ah, nit da ngay def sa temps ba pare nga dem ñeneen ñëw def seen temps kon ndonu li nañ ko gérer parce que tey Ibou Sakho doon wax ne am dara te xamoo ko ñàkk ko te xam ko moo gën wasalaam